gouvernement bi itam responsabilité am moo di doole la ñu amee waaye doole ji inna quwata lillahi jamia léegi yépp dana dellu ak ci loxom suñu borom tabaraka wa taala xaw ma su booba danañu dégg mën a tontu wala dañuy dégg te duñu mën a tontu waaye bés a ñu dig boo xam ne aji wax ji nga xam ne moo sañ lépp dana ne limanil mulkul yowma lillahi alwahid alqahar limanil mulkul yow limanil mulkul yow limanil mulkul yow di ko répété nangami ak ci ati laaxira ñépp ne selo mu ne lillahi alwahid alqahar ñeel na kenn ki nga xam ne moom mooy ka am puissance u not ñëpp kenn waxat jàkk yi kenn waxatul allahu akbar kenn dematul mag كان كان رندت التبت كان وارت وارت يبنا اللو المهم لا سعيد ووحنا بين أخوة من سكوت الناطقين بالصمت كوك رك أم كسو كسو بو خمني نيبني وقت وقت ما يتك كن ينقول كوك ما أم كسو بو su ko defee nag gouvernement bi ñoom la yàlla jox doole nit ñi ragalatuñu yàlla soo ne qaala allahu ñu sàkk leneen nga ne qaala rasulullahi ñu wax leneen ku nanguwul déglu qaala allahu nanguwul déglu qaala rasulullahi na muy dégg ne qaala Ousmane kan du ko déglu waaye ñoom yàlla déglu na la ndax ñoom mu nga nit ñi déglu na la ragal lañ leen te teranga ju day ni gouvernement ku yàlla yëkkati xare ko ci loot loti boppam jox la ko ci fekk bi ñëpp bàyyi leen jox la ko war nga delloo yàlla njukkal delloo njukkal gi yàlla mooy lan gouvernement bi nañu dimbale ñu attew caatu l'islam gouvernement na nañu dimbale ñu am ay xubaat yu maanu yuy atte li yàlla bëgg te dooleel leen su yeboo sax bàyyi leen fay réew mi mën na leen fay su yeboo bañ leen bañ leen leen fay waaye am na ci jaami yàlla yu ñu xam yoo xam ne ku leen noon tànnoon dénk leen li nga xam ne mooy responsabilité bu day noonu danañ ko doxal duñ ca wut pay duñ ca ku leen tabaxal kër duñ ca wut oto ñu ngi nekk yàlla la borom fay